xam nga il est il est supériorité bu ma ko tuddee sax ngeen baal ma saaga la ndax weesu supérieur ndax koo xam bu la bindee bu la créel na la père et pourtant père ba ku ci nekk la ngay jëriñ ci sa morom moo tax xam nga bu ñuy tudd ay du genre ak déggul comprendre ni góor ak jigéen dañoo bokk fu ñu nekk waaye seen rôle ak seen objectif seen finalité c'est pas la même chose ndax xanaa xamoon ni tey ji góor évolution mënta jaar yoon lu dul mook soxnaam diggante bi demee ni mu war a demee jigéen it évolution mënul jaar yoon lu dul ak borom borom këram li fa war a li fa war a jaadu jaadu fa ndax tey jii boo leen seetloo scientifiquement ça a été prouvé ci cadre physique góor performance physique am gannaaw bu séexee soxlaam soxnaam ba pare ci la yaramam di gën a mën ci la yaramam di gën a mën te loolu performance physique rek la bokkul nag léegi effet bi mu am ci xel bokkul ak effet bi mu am ci ruux boo bu fekkee nag léegi diggante bi moo ngi tege ci yàlla ak dëggaam muy beneen affaire mais jigéen aussi ak lim ciy jëlee mais lan moo tax règle am lan moo tax règle am règle jigéen moomu ko. <laughs> règle jigéen moomu ko góor a ko moom ndax boo leen seetloo góor gànnaaw acte sexuel ci la xelam di gën a yeew ci la xelam di gën a clair ci la analyse di gën a précise moo tax daf koy soxla di ko soxla di ko soxla waaye dina am moment boo xam yàlla yàlla daf koy naan kaay il faut ma natt la règle digg si mais gis nga pour wax la xam nga yalla ni mu bëggee équilibre góor yalla daf ko mel xel bu flexible ce qui fait que situation bu ñëw mën na adapté wu très rapidement mën na solution bu mu mëna am sur le plan physique yaramam mo gëna avancer bu góor way xelam dafa de xel bu rigide motax lu mu xass ba japp vision bu mu xass ba am ci aduna du ko nango bàyyi mom kay loolu lay changer wu dëppoog moom li mu bëgg waye mom pour mu changer fay jafé ce n'est pas impossible mais fay jafé mais gis li intéressant nak légui mooy ci cadre digënté bobu ndax jigéen bu goor da fay absorber ADN am <laughs> da fay absorber ADN goor ce qui fait que mom ci waxuma la sax ci cadre fréquentation bi mais physiquement fay absorber trait wu di transformé wu di gën a adapté wook moom di gën a dëppook moom léegi nan la nan la nit mën a gisee lii ne yàlla amul xaju fi <laughs> xaju fi xaju fi gis na nag ci yii yëpp ci yii yëpp la yàlla di di di dox ci yii yëpp la yàlla di tëral xam nga mooy li muy wax ne yàlla ñu bëri dañ ko déggu ndax dañuy xaar ci moom miracle lo xamé da ngay xey rek tek ci sa bët mais dañu comprendre ni yalla échelle échelle d'action c'est une échelle microscopique yalla du dox ci li yépp yi di gis mo limi paré paré nako ci atome ya paré nako ci atome ya kon nak da ngay xey gis ni lépp soti na do xam fu mu jaar do xam nu mu démé motax ñu naan yalla yalla yalla nopi na demb tay soog a ni la démé xeyna sax <laughs> yépp xaju fi xanaa rek bi ñuy tëjee ndax ñoo koy tudd